point 25 104 477 40 02 point 32 salaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu ko waxee sànq bi ñuy dugg si fi nga xamante ne moom moo di daral bi nekk fii ci Daarul Xadim. nga xamante ne mi ngi ci route de Belel bi soo weesoo fi nga xamante ne moo di Alié rek Daaru Xadim nga ciy teg di dëkk boo xamante ne mën nañu wax ne dëkk bu am cosaan la moom moo di daral xam naa damay profité ci occasion bala maa dugg rek nuyu kilifa yi nga xamante ne ñoo dëkk bu sell bi Daaru Karim ku ci mel ci mel ne ñëpp ñi nga xamante ne rek ñi ngi ci ginnaawam Serigne Cheikhouna Bousso mi nga xamante ne moom mooy sëñ Cheikhouna Bousso Kéemaan ak Baye Dame Niang chef de village bu Daaru Xadim ñoom ñëpp euh, moom lañ euh, euh, a ànd i kilifa yoo xamante ne fi jël ay kaddu ku ci mel ne Serigne Mbaye Diop ak dañ jël ay kaddu ñu fas yéene waxtaane daral daral gi nga xamante ne moom moo di daralu Daara nekk fii nga xamante ne moom moo di Touba kon damay jox kàddu gi rek sama baay Baye Mbaye ah, Baye Aliou Ndiaye su ñu doog a dugg ci laaj ak tontu yi. asalaamaaleykum wa ñoo ngi nuyu kenn ko ne ci turam ak santam eh, di leen siyaara di leen balaax di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw fii. ne mm-hmm. dangeen ngeen seet si di bëgg a siiwal a feeñal sunu sunu sunu place liggéeyukaay bii. Mm-hmm. xam ne ci la ñuy suturloo. Mm-hmm. ñoo ngi sant yéen ñëpp di leen gërëm. ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax di rafetlu dalal gi kon damay jox euh, ki nga xamante ne moom moo di sëñ Moussa ci kanam tuuti mu waaye xam naa damay commencer rek ak Baye Aliou ndax euh, xëy na Baye Aliou Ndiaye moom Baye Aliou euh, bu ñu la doon laaj lan mooy sa taxawaay fii ci daral gi lan nga ñu wax. waaw ah, lii tax sama taxawaay ci daral gi. Mhm. mooy man damaa xamul lu may daral. Mhm. damaa njëkk nekk ci ay daral maa nga njëkk ca Daara Jolof. Daara Jolof moo jógee Daara nekk euh, Ndaamaatu. Mhm. dara rek Ndaamaatu jóge fa ñëw forage. Mhm. bañ wax euh, ba nekkee forage di ca daralu forage ga mhm. bañ ne dañuy génn daral yi yóbbu leen ci àll bi. yëpp dañu génn Touba biir Touba. Euh, ñu la man man sax ba nuy ba nuy demat Baxdaat. wax nañ ne daaru ñu def ñu dax seen boor boobu mën naa am daral. ma ne ah foofa de xaw ma mënu yaakaar naa du mën a def dara. ndax boobu fii marché la. marché la woon marché lañ ko nattoon. Mhm. lépp marché lañ ko defoon. 2001. Mhm. Mhm. lañ ko nattoon def ko marché. ba xam nga 2012 sore na. daaw léegi ba bi ma bi ñu defee noonu ñu dem Baxdaat. man sax ma bokkoon naa ci ñu dem Baxdaat. waaw Moussa Sow mii. dikkaat ci gannaaw moom. waxtaan ak euh, sëñ Abdourahmane moo ànd ak Baykaara. ñu dikk. Euh, ne nan karyeeg daal fii ci Daaru Xadim. fii ci Daaru Xadim dem ci sëñ Abdourahmane mu nangul leen ko. Mhm. mu ne ko nangulee euh, ñu dagg ko ci diggante bi def leen marché def leen daral. Mhm. ma ñëw rek daam ñaa ngi ne ma ah yow kat. Mhm. daral gi ñun dañoo def noonu euh, marché bi duñ ko mën a def ak daral. waaye gars yi dikkaat nañ fi Moussa ñëw na fi ànd ak kii ni mu tuddee nañ ko def. ak daral mu fee def ak daral. ba gars yi nee nañ dañ ko dagg def ko. xaaj ko lii ñu def ko marché lii ñu def ko dal kon su jiwut ci kàddu yi wala boog su ma déggee li nga wax mooy hmm. ah, digal li nga xamante ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha joxe na ko ngir ngeen ñëw fii hmm. ah, ginnaaw bi ñu fi nga xam hmm. moo jiitu loolu moo ko jiitu ñun décret nañ ko maag amarteen mii mbaar nañ fi lu mat ñeenti di dindi suñu mbaar ñëpp dem ñu dindi suñu mbaar sama mbaar mii fi la nawet fi la fi ma ne nii man. man ah. ñëpp demoon nañu Samba Dis. Hmm. mosoo fee jóg. mosoo fee jóg damay dem fee di dikk. fi fee di dikk daral gi bu ko waxee. Ah, waaw yaatuwaayu daral gi ndax boo ko doon xayma ci nan la toll. waaw ah, yaakaar naa cent mètres carrés moom mën na ko. cent mètres carrés mën na ko waaw. Uh-huh. li fi ay borom kër uh, ñaata lañ toll. nañ bëri nañ ay borom kër man ay téeméer téeméer la. Uh-huh. règlement daral gi ndax am na ay règlement yu ngeen teg ne nii lañ bëgg daral gi doxe ko. waaw am na ay règlement règlement yi bu ma paree. Moussa dama ko wax incha allah Moussa dama ko wax. ba ba kon ba tey yi euh, ngeen sosee daral gi boobaak léegi euh, ci naka ci yan condition ngeen dox. nga xam yéen yéen ay doon ñi fi nekk ñi fi jiitu ñoom ñoo jiite daral gi wala nan la nan la doxee da ngeen sos benn bureau bu koy doxal wala da ngeen di bàyyi. waaw moom ak gis. Mhm. daral goo mën a gis. Mhm. waa daral ga ñooy am seen bureau. di doxal lañ lay doxal ñoo xam règlement wu daral nituk daral sax dëgg dëgg moo xam règlement wu daral uh-huh. ñu ko ñu fi nekk ñun ñu fi ne uh-huh. ñoo ñoo ñoo ñoo amee règlement bi ñoo amee règlement bi daral am na sécurité ah waaw am ndax ñun ñii yëpp fi mu ne ñun ñëpp ñu ngi suñu jur ñu ngi uh-huh. ñun ñëpp dañuy waaxu rek dem ñibbi dem ñibbi ba xëy bu ñu xëy see fekkaat fi suñu lépp fekkaat fi seen lépp wax dëgg yàlla mu mel ne damay daal di ki nga xamante ne moom moo di bàyyi euh, kii euh, Moussa Sow yëkkati kàddu moom itam parce que bëgg naa waxtaan moom ci cosaanu daral ginnaaw ba moom moom moo sos daral gi mm-hmm. boora ba bokk na ci ñi ko sos ah. ñu cosaanu daral gi euh, jafe-jafe yi tamit xam naa yow dinaa la ci laaj tuuti bala maa dem ci Baye Moussa mm-hmm. jafe-jafe yi ngeen dund ndax mën nga ci a mm-hmm. nekk di di xont rek jënd ko xont te njaay mi moom wax dëgg soree na lool mais dafa mel ne soriwul Touba lool parce que boo génnee àll yi rek ak si fii mais xëy na dafa dafa siiwut waaw dafa siiwagut waaye waaye soriwul moom wax dëgg yàlla ah, soriwul te uh-huh. tali baa ngi nii uh-huh. cent kilomètres cent tuuti lay cent mètres tuuti lay teg uh-huh. sa bi dem moom sori soriwul ci ku ko xamut ku xam nag ni noonu fu mu xamut day sori ci moom waaye ñun ñi ko xam-xam lañ soriwul d' accord damay jox ki nga xamante mooy sëñ euh, Abdou euh, Abdou saw moo joxee kaddu gi moom itam xëy na dina yëkkati ay kaddu jëme ci wàllu woowu hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen baaxal ak di leen baaxal ak te lu ngi leen ñaanal wér ak wérle di ko ñaanal mbooloo yi fi teew yëpp ci barke rasulu sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen sant bu baax te seen rajo bi yàlla na ko yàlla doolal ma kat naal ko ba ngeen jëm fa yegg fa ngeen foogutu woon amiin ci barke rasul bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu nag ci turu mm-hmm. borom dëkk bi muy mm-hmm. kalifa bi muy sëriñ Muntaxa Mbàkke ñun de ñëw nañ fii ci kaw ndigal mm-hmm. ndax euh, bi Serigne Sidi Moutar di génnee daral yi 2012. ci la ñu jógee woon ci ndigal. Mhm. am ñu jëm Bagdad am ñu jëm Ndindi am ñu jëm Kër Kab. Mhm. ci biir loola it ci biir loola it. Mhm. laamaan it laa ñëw ñëw ci chef du village magi eh, rakk kii di toog. ma laaj ko solution mu ne ma lii solution mun naa am. ma ñëw fii waxtaan ak kalifa bi. mu may ñu sëñ Abdourahmane Bousso mu may ñu ci ndigal ma ànd ak ku ñuy wax Serigne Babacar Mbacke ak Serigne Sekouna ñu ñëw fii ñu won béréb ba pare ma dem woo idi mu ñëw ñu natta ko waaw bi ñu si kaajee def mbedd weex meer diggante daral bi ak marché bi nattalee marché bi ba pare ñëw lattalee lii nag muy war a toll ci 635 parcelles 635 parcelles moo nekk ci daral bi waaw lépp li ci biir lépp nag jël nañ ko ba nga xamante ne am na ñuy toog di kaar amaguñu. Mhm. bu ñu sañoon sax dañuy yokkal ba nga xamante ku nekk di nga mën a am. nga mën a am. loolu daal mooy suñu mooy cosaanu mooy cosaanu daral gi. Mhm. daral gi bi ngeen ko sosee boobaak léegi ndax xam bi sëñ Mountakha joxee ndigal li pour ngeen ñëwaat fii ginnaaw bi ñu jëlee gar daral gi garage daaru <laughs> ah, gis nañ ni daral gi am na fi ñu fi ñëwaat ñoo xamante ne ci lañ yokkuwaat nag ba mu toll nii. alhamdulilah rabbil alamin ñun kay bi ñu bi ñu déggee kaddu sëñ bi. Mhm. ci la ñu jóg ñu xam ne lii moom luy am fal force la mhm. ci loolu la ñu bayee lépp bay bay loo nga xamante ne li muy tere yépp ci la ñu bayee mhm. doke ci kaw ndigal ñëw ñi ñëpp buddi seen mbaar ñëw toox ñëw fi xaar di déglu ah, jafe-jafe yi ci laa nekkoon ak sëñ Aliou léegi yan jafe-jafe ngeen di faral di jànkonteel fii ci bërëb bi jafe-jafe bi ñuy jànkool fii daal mooy manqué ndox manqué ndox mhm. forage bi nag ñu bari nee nañu paanut deful dara forage bi baax na léegi nag ndox moom manqué na lool tund yëpp dañuy rootaan même ñun tey dañoo yëndoo rootaan yi di jënd bari ga fanweer ñaar fukk ñaar fukk ak juróom. Mhm. xam nga loolu moom ci benn jafe-jafe. bi la ci la jafe-jafe waaw. Mhm. bu weesoo ndox mi. weesoo ndox mi bu ñu sañoon ñu dolli ñu fii ay courant ba mu gën a kii am nañ courant am nañ lépp ndax ndax ñun dañoo nekkoon ci suñu. Mhm. société bopp. xam nga nit su fekkente ne. kaaroo ku lay gunge da ngaa jóg dox sa dox ndax bi ñëwee dañoo natt daral gi. mbayloo ñëw miiree ko mm-hmm. mu ngi nii toox léegi la ci des a bañu indi tiwo ndox def yëpp waaye mm-hmm. installé lépp waaye ndox daal moom ndox daal moom moom manqué na problème bi d' accord ku wax ci jafe-jafe daral gi bokk na ci li nga xamante ne moom moo di jamono gi ñu toll nee nañ euh, manifestation yi fi jaaroon ñu ci bëri tiit nañ ci wàllum xar yéen ñi nga xamante ne tabaski baa ngi ñëw ndax am yéen ñi nekk ci daral gi jàpp ngeen ni xar dana am nan daan amee incha allahu rabbuna yaakaar naa ne kar dina am ba doy fii hmm. ci Touba di moom mun na ax ne dina doy dina doy waaye waaye xaw ma nag Dakar ak feneen ak feneen demuma foofu waaye fii Touba moom hmm. incha allahu rabbu ndax buntu Jolof fii ba daara ba ngay dem Dooji ba ngay dem Fouta hmm. am na ñu fi ñëw sax jógee Fuuta ko tey wër soogi mhm. jaay nañ fi seen kar mhm. wàcc nañ seen kar bi jaay nañ ba jeex ñibbi nañ kenn nekk mu ngi fi fii léegi sax mu ngi tax mu ngi nii mhm. mu ngi nii eh, daal seen xel daal na ne jàpp ngeen ne tabaski ren gi moom xar dana am fii ci daaru ci daaru xadim dina am daaru xadim ba doy actuellement eh, prix yi fi am ban moo ci gën a suufee comme sama classe yi nga ne ay néew doole lañ ban nga yaakaar moo fi gën a am dafa am ay façon qualité nag xam nga façon dafa bëri ndax ku ne ak foo nga toll boo yegsee fii di nga ko mën a amee. ca mhm. na nga ko soxla mhm. waaw mu ngi déparé daal ci fukk. fukk ba ci cent. ba ci foo yem nag ci kaw nag am na. foo yem rek am na fi. Mm, foo yem daal fu képp koo xamante ne fu dooleem toll bu fi ñëwee. Mm-hmm. incha allahu rabbu dinaa fekke nu mu amee. Mm-hmm. incha allahu rabbu. d' accord bu ngeen demee ba màggal gi kii wala bokk tabaski bi gën a jege ndax am soxlawu leen lenn ci ay accompagnement boo xamante ne maire bi dana leen ko accompagner ci wàllum sécurité ndax xëy na jamono ji ñu toll na da ngeen bu boobaa da ngeen fi gën di guddee. soxla nañ ko lool. Mm. lool lool lool kay mooy première soxla. Mhm. ak beneen soxla bu ci mën di toppaat. Mhm. suñu sañoon. Mhm. dañuy dimbali ci ay sécurité boo xamante ne nii. ñu taxawuñu daal taxaw boo xamante ne nii. dinañ ci mën a gis suñu bopp képp koo xam ne yor nga fi daram mu mën a mucc. ñu ngi ñaan. yéen dimbali ñu ci loolu. ndax kuy képp koo xamante ne mu ngi déglu rajo bi di ko dégg. Mhm. na xam ne loola nag. seen bëgg koy soxla. Mhm. ku wax wàllu vol de bétail muy wàllum sàccum jur yi xëy na yéen yéen ci yéen ñi yor jur gi yéen ci gën di loru mhm. euh, lu lu jëm ci wàllum sàccum jur naka ngeen koy jooyee yéen tam ci ci ci état bi pour ñu jàppale leen ci. ah sàccum jur de moom fi ne nii def daj àdduna bi. moo tax daanaka nag fi ñu toll jëmm bi ñu tollu moom. Hmm. ku ci nekk ni ñu def comme ça jël ay garde def leen fii. Hmm. jox leen seen li ñu war a jox yëpp ñu téye jur gi bu ñibbee bay leen fii bu suba bu ñu koy fekkaa leen fii. Hmm. alhamdulilah rabbil alamin gis ñu ci lu ñu ricc. gis ñu ci lu ñu kepp. ñu ngi leen di sant waaye bu ñu amee ñu leen mun a dolli ci événement lu mel ne màggal tabaski. korite moom dinañ ko sant. dinañ sant d' kon mbokk yi ki ma dalaloon nii moo nekk euh, ki nga xamante moo di sëñ Moussa Sow xam naa ne damay daal di euh, dem ci intervenant bu mujj bi mais ki nga xamante ne moom moo di sëñ Mbaye Diop moom itam ci ndaw ñi nga xamante ne ñi ngi yëngu fii ngir ñu gën a waxtaane euh, li nga xamante ne moom moo di jafe-jafey dalal gi ak tolluwaayu dalal gi ak kon damay bàyyi sëñ Mbaye mu dugg si ñu doog ñu doog agale kii bi salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne turam ak santam di nuyu waa Rafah TV hmm. képp koo xam ne si yaa ngi seetaan Rafah wala nga koy ngay nga dugg site internet Rafah TV rek ñu ngi lay bëggee te di la ñaanal jàmm. ndax mm-hmm. lii lu am solo la. macha allah jërëjëf sëñ mbay sëñ mbay laaj bi njëkk bi ma la laaj rek mooy fii ci Daarul Xadim ci daral bi pour transport bi ñëw fi ndaxam am yomb na bien vrai que tata bi mi ngi daw di ko romb ndax am ngeen fi garage taxi. waaw Daaru Xadim nag boo ko déggee dëkk la dëkk boo xam ne dafa wër ci dëkk yi wër Touba. Mm-hmm. muy dëkk boo xam ne ci dëkk bu yàgg la. ndax dëkk bu ñu nee Daaru Xadim képp ku xam cosaan Daaru Xadim war nga xam ne am na taarix. bu ñu demee ba Serigne Mountakha eh, jox ndigal Baye Fall yi ni leen bépp place boo xam ne si wala bépp jaay yëngatukaay. boo xam daa nekk ci kaw corniche bi na fa jógee. Mm-hmm. ñun ba ndigal la jógee rek dañoo jóg. Mm-hmm. xaaruñu ñu ñu fay fekk duñu fa jëlee mhm. donte am na ñoo xam ne sax toog nañ dafa xaar ba am fay amaan mhm. ba sancaat yeneen daal waaye ñu ndigal moo ñu yëkkati indi ñu fii mhm. ku ndigal nag yëkkati indi la fi nga toog di xaar ndigal yaakaar na waroo yam ak kenn koo xam ne si am nga beneen manin wala beneen doxalin bay mën a suuxal daralu daaru xadim gii mhm. ndax daralu daar xadim yaakaar naa ñëw fi mhm. jafewul jafewul si képp koo xam ne si am nga yittey xar wala képp koo xam ne am nga yittey jur mhm. bu manti doon soo duggee si tata numéro trois bi dana la indi ba ci tableau bi ñi ngi def ay jéego nag pour taxi yi wala pour euh, rim yi mën a si ba ci daral gi parce que tamit autorité yi nga xam ne si ñoo yor wàllu maire bi yaakaar naa yooyu ñoo si gën a habilité pour waxtaan ci loolu si nga xam ne si bu ñu déggee suñu kàddu xam ne bu ñu amee moyen de transport yoo xam ne dana yegg si ba fii hmm. dana dimbali doomu aadama ñu mën a yegg si ba fii hmm. mën a seet li nga xam ne si ñu ngi ko bëgg si ay xar hmm. soo dikkee nag fii si Darou Darou Xadim ni nga xam ne si moom la ñu aménagé daral sécurité bi fi am ak plan bi nga xam ne si liggéey nañ ko Daaru Xadim nga xam ne fii dëgg-dëgg daral lañ ko def te dëgg-dëgg ñi fi nekk mm-hmm. dañoo bëgg liggéey te bëgg dañ fee toog pour liggéey d'accord xam ne si nag daa bëgg a toog pour liggéey pour jàppale ko nag yaakaar naa wóor ta jafe waaw allah ah, mu mel ne kon sax ba ci ndigal yi nga xamante ne Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ko Baye Fall yi muy mm-hmm. dara yi nga xamante ñoo wër corniche bi mm-hmm. ñu jële leen fa ñu dem ci euh, bi ñuy waaj muy tabaski bi xamante ne daral gi am na ci ci waajtaayu euh, euh, fas yéene jaay lu yomb mm-hmm. euh, nit ñi mën koo jëriñoo mm-hmm. am ngeen préparation yoo xam ngeen ko ci ak tamit ñi nga xamante ne xëy ñoom duñu ay julo di jaay xar mais parfois ñu dikk yokk augmenté li nga xamante mooy prix duggee ci géew bi mm-hmm. parce que boo dikkee ci daral gis benn xar buy jar cinq cent mille nga ciy fay cent cent mille yaakaar naa bëggoo jot ci xar bi daral kenn ku ci ne li sa poos toll rek boo dikkee boo tolloo xar mi yaakaar naa da dugg ci daral gi génnaat te leneen beneen affaire tamit am na comme ni mu koy waxee saa saa su rek ñi nga xam ne dañuy am seeni xar ñëw ko kenn ku ne yaa xam sa xar nañ ko amee mais ñun ñi nga xam ne dañoo opté nekk ci dara gi pour liggéey ñi ngi def suñuy moyen suñu guddi ak bëccëg donte dëkk bi amul sécurité donte donte réew mi amul sécurité ñuy jël suñu xaalis di dugg ci àll bi di wuti ay xar pour mën a satisfaire population Touba hmm. mais surtout pour satisfaire population Daaru Xadim ak li ko wër hmm. ku dikk fii rek di am xar mi nga xam ne tolloo nag sa njëg hmm. ndax à part de cinquante mille ba jëm kaw kenn ku ne loo tollool mën ngaa am xar mu ni tollool wante nag boo dikkee am cinquante mille bëgg xar mu jëpp deux cent mille hmm. wala doo xool xar ma nga tollool te day indi jafe-jafe nga ni jaaykat yi ñoo yokk xar yi hmm. te jaaykat yi ñoom yaruñu xar yi dañuy jënd xar yi hmm, mais nag ki nga xam daa yar xaram këram muy xaru yar mu mu yeew ci këram moo xam la mu ca frais moo xam nam ko mën a jaayee ñun tamit bu ñu jëndee xar yooyu tamit dañuy xool pour am bénéfice mais tamit bénéfice bi yëpp danañ ci seen yërmande danañ ci seen mbokku taalibe danañ xam li jaadu koy wax ci client yi xam ne dëkk bi tamit neexul fépp la réew mi di tàngeraat ci wér laaj bu mujj bi ma lay laaj mooy ku wax daral wax wàllum seetal gi ndax xam da ngeen di manko di bale daral gi wala léeg parfois euh, wala da ngaa da ngaa dugg si sama lañ ci dugg si foo xam ne si moom mii di ma caméra xam na fi may waxee mm-hmm. léegi rek am na ku toog fii daal ni ajjuma war nañoo ñun ñëpp ñu taxaw mm-hmm. bale daral gi seetal seetal daral gi donte am na ku ko fi waxoon fan yële mm-hmm. ndax ñun ñëpp xam nañ ni mbuus baaxu si jur gi ñuy jaay ñun ñëpp xam ne salté instabilité bu fekkee ñi nga xam ne dañuy ñëw di jënd ci gis nañ ni fii salte na ñun du ñu jox respect du ñu jox cër bi ñu war a jox moo tax képp koo xam si xëy nga boo balee sa place ba mu set dinañ fexe ba wut ay ñoo xam si tey ñu ngi ciy waxtaan ak ñi nga xam ñoo seq ñun dara gi waxtaan ba nga xool kii dëkk gis fi set kii dikk gis fi xam ni ñii kat ñu bëgg seen bopp la yaakaar naa dina mën a pro dina mën a influencer ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi doon dégg Daaru Xadim ki nga xam ne dikk na li mu bëgg mu am ko fi saare am ko si yar am ko ci teggin am ko si sécurité bu mat sëkk am ko ci ay ndaw yoo xam ne du ñu nekk di jànn ken ay kilifa rek ñoo fi nekk hmm. te boo xoolee ni la ni lañ liñ la wëri nii rek nga xam ne ay responsable rek moo fi nekk ndax mbooloo moo xam ne boo taxee lu mat cinquante personnes lu mu dee dee wër la hmm. te ñëpp di ay responsable war ngaa moo tax ñi ngi ñaan képp koo xam yaa ngi dégg suñu kàddu gi hmm. nga jàppale ñu si daraloo daaru xadim bii ndax daraloo daaru xadim ñëw bi jafewul mais nag li ko wër bu ñu fekkoon amoon nañ nu ñu mën ay quatre plans. tey ba nga xam ne si oto buy dikk man a am doo am benn jafe-jafe wala ay kii te tamit sécurité bi dama siy gën a insister. bu vey bu vey événement bi jegesee. le maximum de sécurité suñ ko amee moo ñu gënal. parce que kii ñëw di jënd si yor xaalisam na am assurance door a dem fa muy jënd. Mm. bu amul assurance du fi mën a ñëw. kon ñu ngi leen di ñaan rek képp koo xam ne yaa ngi dégg kàddu gi. Mm. nga xam ne Daaru Xadim daral la. à part daraloo Diri à part daraloo Kër Kaabu troisième daral fii ci si hmm. a benn point ndax boo xoolee Touba amul fenn foo xam ne si tey ay ndaw mën nañ faa booloo di yëngatu comme gis nañ benn occasion xam ñun mën nañ fa nekk di góorgóorlu xar suñu tànk tubéy koo xam ne si nag boo ko ba ma ma xul mu nag mu mel ne daral bi waxee taxi yi nga xamante ne war ngeen ko ak bi ndax yéen a ngi koy joxe wala bokk euh, am na ci ñu koy joxe am ñu koy gàntu. waaw loolu am na benn interview ma def démb rek si si benn euh, chaîne de la place maanaam kenn ku ne doo xaar li la Touba di defal. Mm. da nga naan man lan la participe développement Touba. Mm. ay taxes bu ci waree. ni ko ñëpp di defe war nañ kaa mën a def mm-hmm. ndax wàññiwul dara mais te buñ ko dee def nañ ko seet yërmande di ko seet loo xam ne si nit ñi danañ ko man mm-hmm. ndax ni ko Touba sa kanam di ko waxee laaj lu ñu mën def ko fi ñu xam wala nga def ko foo xam ne dañ koy gis mm-hmm. wala teg seen bët tey koo xam ne laaj nañu dara te mu leer na li ñuy laaj ci dara gi ko indi wala leer na li ñuy laaj ci Touba gi ko indi loo ñu laaj danañ ko jox parce pour bi jox ñu xaaruñu rek pour président jox ñu xaaruñu mais dañoo jug di jaayante ñafe pour bokk ñi nga xam ne bu Touba avancé wala bu Touba yeggee fa mu war a yegg ñu ne ndaw yi Daaru Xadim wala ndaw ña nekk ca daralu Daaru Xadim bàyyi nañ seen waar góob nañ si liñ ci war góob macha allah jërëjëf kon mbokk yi ñu ngi euh, sant bi nga xamante ne amal nañ ko fii nga xamante ne moom moo di daralu daaru xadim ma fàttali ne leen euh, moo di aliya euh, romb fi nga xamante ne moom moo di poste courant bi rek boo accès fi nga xam mooy pencum daaru xadim mi sa loxo ndeyjoor la tableau baa ngi foofu daral bi nag jàpp naa ne daral la boo xamante ne sos gi yàgg na ndekete waaye tamit bi ñu joxee ndigal li dégg ñoom ñoo di ñi nga xamante ne doomi réew mi doomi dëkk bi lañ ñu ngi fi di daan seen doole mu mel ne tamit euh, xëy na sécurité bi mooy seen euh, li nga xamante jafe-jafe ak li nga xamante ne moom moo di ndox mi ak li nga xamante ne moom moo di wàllum courant bi mhm. bëgg nañ ku leen ci jàppale baax a baax kaddu yi ngay tàggatoo yan kaddu yi kon ñu ngi wax ñëpp rek euh, ñu ñaan si yàlla ñu am ci tabaski jàmm ak salaam mhm. di wax képp ko xam ne si yor ngay njëkk nga ñëw fii boo dikkee da am prix bu raisonnable da nga am prix bu méngoog li bëgg mm. te daral gi ni leen nit ñi di waxee naan la xar dafa cher mm. ku dikk fii di nga am xar insha allahu rabbi am nañ xar yoo xam ne ay xar yor nañ am nañ xar yoo xam ne jële nañ ko fi ñu ko war a jële indi ko saytu ko bëgg te ku dikk duñ la fi jaay xar moo xam ne si xar mu feebar la wala xar mu am jafe-jafe wala xar mu am benn problème mm. parce que ji nekk waa doomi dëkk bi doog ñoo nekk fii hmm. kese kuy jaay sa sa mbokk nag wala kuy jaay koo xam ne da ngaa bokk ak moom wala kuy jaay sa bopp yakar naa lu baax rek nga koy jaay hmm. moo ko tax ñu ngi woo ñëpp waa Touba hmm. képp koo xam ne si bëgg nga xar ñëwul fii si daaro daaro xadim soo duggee tata numéro 3 ngay dugg soo duggul tata numéro 3 boo jëlee rim yi boo wàccee tamit am na charrette yuy ñëw fii directement mm. boo laajtee daral daaru xadim boo dikkee péncum daaru xadim am na benn tableau bu ñu fa def mm. kon ñu ngi leen di ñaanal tabaski jàmm mm. di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndaxte lépp moom lii la suñ te corniche bi rek yaakaar naa duñ masa am daral te mm-hmm. foofu tamit yoon la mm-hmm. képp kuñ yóbbu si yoon na nga xam ne yàgg yàgg da ngay jug sa yoonu ñëw si daral ah ñëwal nga toog liggéey te yàlla tax képp koo xam ne yaa ngi toog di liggéey nag yàlla rek moo la fay fekk mhm. dañoo am yaakaar fii rek yàlla bu suñu yaakaar te fii darol daaro xam baax a baax Serigne Sidi Sow mi nga xamante ne kilifa la ci jataay bokk ci kilifay digaan ko baax sant ko gërëm ko ci jataay bi di ko ñaanal yàlla yàlla ko jàmm ak mboolem ñi nga xamante ne euh, ñi ngi ci jataay bi ñëpp ñu ñaan yàlla yokk daral gi ba ñu dem ba daral gi bokk ci daral yi gën a mag ci Touba ah, di sant baax a baax Cheikh Magay mi nga xamante ne ah, sama mbokkum taalibe la moom ah, ku ci Samba Touré ak ku ci mel ne Baye Dame Niang mi li waxoon na sànq ak itam mhm. Ousmane Mbaye mi nga xamante ne coordination émission bi yëpp ci loxoom la jaare ah, ñu ngi koy sant bu baax gërëm ah, di sant ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi fi am nañu ci ay yoo xamante ne xam naa leen ñu mën a ñoom bokk ñoo bokk dëkk fii ci ah. ngi leen sant di leen gërëm mm. mbokk yi émission baatu askan wi la woon ci biir daralu Daaru Xadim ndax wàccaayu li nga xamante ne mm. moom moo di uh, tabaski mm. édition 2023 bi di sant ñëpp Euh, di gërëm ñëpp euh, sëriñ Mahmoudou Fadal Kébé moo nekk ci benn caméra bi euh, sëriñ Aline Badara nekk ci beneen caméra bi sant ñëpp gërëm gërëm ñëpp di wax rek wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi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 point 25 104 477 40 02 point 32 salaamaaleykum wa rahmatullah